liggéey ci xam-xam ak ci leneen pour jëmale sama réew kanam donc dama changé wul position ci dara li ma gëm laa gëm mooy États-Unis d'Afrique boole réewu Afrique ñu jëm kanam liggéeyal sama réew Sénégal ba nga xam ne chaque fois bu ñu ma gisee ci liggéey bi ne gàcce ngaalaama loolu laa gëm. li ëpp solo mooy naka lañu ñu fexe ba assemblée nationale Sénégal ñu gën ko naw gën ko respecté jox ko gëddam aussi parce que wane na ko ci jë jëfinam wane ko ci jikko yi wane ko ci sérieux bi ñuy jax travail bi ñu réew mi confier

yàgg ko wax sénégalais ko dégg du la jappé mais gis-gis ci suba gis-gis ci donc euh, adversaire d'accord ennemi pas du tout amul mon ku nekk ci assemblée nationale bi ko xamné jappé jàppe ko noonu ay doomu nday lañu ay sénégalais lañu samay mbokk lañu suñu xarit lañu amna fu ñu Sénégal ñu gens ñun ñep fi lañu fekk Sénégal bu ci dañuy dem fi Sénégal donc nañu ba. doxalin bi rafet wax ji rafet ba pare ku nekk li nga gëm nga def ko te ñu liggéeyal suñu réew.